في هذا المكان إخوة المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي سنت يالله سنت يالله مغايم ديكو سنت سنت يالله كايم di julli ak di sëlmal ci suñu sang sayyidana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñoom ak sahabaam ak mboolem ñi ko topp ci ak rafta ba bis penc di jaajëfal suñu kilifa Cheikhna Ahmad al Khalil di ñaan suñu borom dolli ñu tawfiq ak ay ngëneel ci barkeem dolli ko yàggal Cheikh Sidi al Muxtaar dolli ko wéral ba lépp lu mu yéenee liggéey lislaam Cheikh Cheikh al Khadim ak ci jullit yi yépp suñu borom defal ko ci kawe jortam ak mboolem jëwrinam yu baax yi yépp di jagleel ay ziyaara ak nuyoo ci borom penc mi ak Cheikh Ahmadou Mbacké sëriñ Cheikh ibnu al Cheikh Souaïbou Mbacké radiyallahu anhu ñuy ñaan suñu boroom gën a yokk aw fanam gën koo wéral gën ko fee bàyyi ba lépp lu mu yéenee liggéey ci atub ak Cheikh Souhaïbou Mbacké suñu borom defal ko ci lu kawe njot mboog mboolem jëwrinam yu baax yépp rakkam yi ak doomam yi ak mboolem ñu aju ci moom ñépp ñi nga am mbégte ci dellu siwaat fii ci jumaayi Serigne bu Mbacké di ndokkeel mboolem jullit yi nga xam ne ñu ngi ci barab bi ak mbooleem koo xam ne nam mën nañoo déglu ak fu mën a nekk ci àddina bi ñi ngi ci atum 1437 ci weeru ramadan ci ñaar fukki fan ak juróom ci dëppoog 2006 benn fan ci juillet juin zolier benn panu zolier ci jumaa ju tedd ji nga xam ne mooy pencum sëriñ son bu Mbakke ñu am gan bu tedd muy Cheikh Abdoul Ahad Mbakke sëriñ Abdoul Ahad Mbakke kenn la ci njabootu Cheikh Abdoul Baqi Mbakke Cheikh Abdoul Baqi kenn la ci njabootu Cheikh Masamba Mbakke al axil karim li Cheikh أحمد القضيم رضي الله عنهما الشيخ عبد الأحد مكمي كان لك نجبوت سهنا ميمونة مكي بنت الشيخ عبد القادر مكي ابن الشيخ أحمد القضيم رضي الله عنهم جميعا moom ميجي جاني أدنى في كتوبة fii في القرآن jàngi fi alquran ginaaw bi mu àggalee alxuraanam mu tàmbalee am njàngam xam-xamam ci biir dëkk bi jàngee na ci Gede jàng ci kër a Cheikh Habibu Mbakke mi nga xam ne ñu bari jaar nañ jàng lu bari itam ci Daarul Muxti ci a Cheikh Abdourahman Mbakke ginnaaw bi nag la génn fii ci réew mi dem bitim réew dem Mauritanie dem Maroc mottali fa ci xeeti njàng yi nga xam ne njàng yu kawe ba yàlla jox ko e, kayit yu ñuy wax doctorat kon am na shahada muy doctorat am na ko mu dellu siwaat nag ci dëkk maamam bi ci dëkku Sëriñ Tuuba ci péncam maamam nekkaat bokk ci ñi nga xam ne ñi alquran di wax ne ab kuréel lañ génn dem fàggu ji xam-xam ñëw dellu siwaat di tasaare xam-xam boobu ngir yee ñi nga xam ne ñoo fi desoon ngir ñu mën a am ragal yàlla ngir ñu xam lu ñu war a wattandiku ak lu ñu war a jëf ak lu ñu war a war bàyyi kon kenn la ci ndaw ñi nga xam ne ndawi sëriñ Touba lañu seen lépp di yoon wi ñu bokk ci ñuy fàggu ji xam-xam ba yàlla wërsëgale leen ko ñu dellu siwaat nag am yéene liggéeyal xam-xam te jaare ko ci ndono li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi radiallahu anhu ak mbokkam yu baax yi mu àndaloon muy maamam Cheikh Massamba radiallahu anhuma ñi am yéene nag ci mbokk yépp ñu ñëw déglu waxtaan wi ndax dana leeral diggante tom bi sëriñ bi dana leeral itam lan mooy dénkaane Sëriñ Tuubaa te ñu bari ci ñun léegi-léegi dañuy ñàkk ak ràññetle donte ko taalibe yi ñu baax lañu ñu bëgg gëstu lu aju Sëriñ Tuubaa lañu waaye nag waxtu wu nekk ñu di leen gën a yee ak di leen jubbantil seeni gis-gis di ko teg ci njàngaleem sëriñ bi dëppale ko ay mbindam loolu bokk na ci ab liggéeyam moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo tax kon dana yeeta tey ci diggante lan mooy dénkaane Sëriñ Tuubaa li war a jàpp dana itam indi jukki lenn ci ay mbindam yoo xam ne war na koo gaaral fii ci jataay bi bu fi xajee muy lenn ci ay téere yoo xam ne sëriñ bi moo ko tënk te lépp day dénkaan insha allahu taala li ci waxtu bi maye lépp dana ci am yéene amal ko insha allah kon gan gi mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ni leen ko waxe woon war a waxtaana tey lenn ci ndénkaane sëriñ bi radiyallahu anhu wa ardaa jotaay bi itam am nañ yéene ndokkeel fi ay jàmbaar yu baax yu bokkoon ci yoon wi daa liggéey ci lépp lu jëm ci liggéeyu kër Sëriñ Souhaïbou di jàppale daairatu xuratul ayni ci nose yi ñuy nose ay jotaay yu xam-xam ci koor gi ak ci màggalu Tuubaa loolu moo tax ñu ràññee ci a cheikh Mouhamadul Xayri ibnu a cheikh Hamzatu Jaxate daa ñëw Euh, ndokkeel ko jox ko lu ñuy wax shahadatu taqdir euh, waaye moom dafa bokk ci ñi jiitu ca ginnaaw tànn dëkkaale jeeg suñu borom yal na yàlla dolli ko ngërëm ak njéggal ak barke ci barzak sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci Cheikhul Xadim ak waajuram yu baax ñam ko fekk yépp moo tax danañ jox diplôme boobu ay njabootam insha allahu taala ñu ngi leen di xaar dara ñu agsi ci jotaay bi sëriñ daam njaay inakuwa daa bokk ci ñi nga xam ne diirub li muy dund daana feeñal ay yéeneem ak jàppam ci liggéey bi ñu liggéey ci kër sëriñ Sohaybu bu ci jotaay yi xam-xam yi fi daa am moom it ñu am yéene jox ko ak ndokkeel teral ay fabeem ngir fàttaliku seen waajur wa ak yéene ñaanal ñaanal ko suñu borom jéggal ko te moom itam foofe mu nekk mu sedd bu yi ci moom ak soxna Tabara Faal moom it di kenn koo xam ne ku ràññiku woon la ci léegi jumaa ji ak ci jotaayu xam-xam yi ñu fi doon amal moom it mu daal ci sonn bu baax te yàlla dogal mu jiitu ñu di ko ndokkeel di ndokkeel ay fameem ci coono yooyu mu daa def di ñaan yàlla lépp mu nekk aw yiw ci moom foofee mu nekk te yàlla barkeelal ko ginnaawam loolu daal mooy ay ay ay e, yu fi war a am insha allahu taala ci kanam tuuti su ko defee nekkoon ñuy gën a sàkku ci mbokk yépp ñu gën a teewlu te gën a taataan li nga xam ne moom la sang bu baax bi indi tey mu acheikh Abdul Ahad Mbacke a acheikh Abdul Baqi ibnu acheikh Masamba Mbacke radiyallahu anhuma kon acheikh kàddu gaa ngi nii mbooloo mi yépp yow la ñuy déglu insha taala di alhamdu wa shukru maan lillah والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا شفيعنا محمد النبي الأمي خير خلق الله وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بقي نيو دي ngi leen di di ndokkeel mbokk yépp ci weeru tedd bi ñu nekk ci bis bu tedd bi ci fànn yu tedd yi ñu nekk di ñaan sunu borom mu may ñu ñu ko ci jàmm te am tawfiqi bokk ca ña ko def ca nam gën a mate woor weeru koor dundal guddi ya woor tamit bëccëg yépp war mat قيام ميك سيدي امين امين نفجك وتيك ليلة قدري te yàlla dencal ñu te yàlla yow ci mu nangul ñu dencal ñu koo xam ne làq yàqu du baal te may ñu yàgg ko fekke yàgg ko woor ci barke Seyxina Mawlana al Imam al Abdul Hakim radiallahu taala anhu ñu yooyu yooyu ak si ñu ngi ciy jiital kilifa ëtt bii kilifa barabu sëñ Tuubaa bi mooy kii nekk ci bopp kër ak njabootu Cheikh Souhaïbou di Cheikh Ahmadou Mbacké di ziyaara njabootu sëñ Souhaïbou yépp di leen ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla jàmm ak wér ak tawfiq te yàlla dëgëral leen may am mbégte lool ci dikk fii ci barab bii bokk ci jotaay yu am solo yi nga xam ne sama mbokk yu baax yi ci département yi njiitul Sénégal bi ñu ngi koy def ma am su dee loolu ngir bokk si ak yéen jotaay yu tey bii di ko sëñ sëñ Fallou si la wax si la waxee noonu la dugal maanaam waxtaan bi mu wax foofu la jëm incha allah muy day jëm ci dinkane señ bi dinañ gëna a nak bu baax inshallah allah liñ ci jublu waye rek moy nim ko waxe dik fi di san ci lool li tax ñu na lool señ Chouaïbou radiyallahu taala anhu wa nafaana bi dafa bok ci yim doon ci señ bu mag bi bëgg jari nit ñi ak yërëm leen loolu dafa fis lool ci nim leen jege ñale xam-xam yi ginaaw bo xamé ni yarna ay maas yu bari ay wuur yu wuute yar leen ci jàng alquran bañ man ko lool xereñe lépp lu aju ci alquran mokkal gaag mbind maag dafa beesalaat sax yeesalaat loolu sëñ Bàkke bi su doon wax ne sëñ bu mag bi dafa yeesal lépp loolu lu gudd la waaye dafa am kaamil bu mu bindaloon sëñ bi def ci ak muqaddima wax ci ci xeeti xam ras rasmu lu xóot loo xamee ne eh, kiimaan la waaye ci biir loola nag mu wax ne sëñ bi bi mu dikkee lépp daa yeesaat waaye sëñ bu mag bi yeesal boobu mu yeesaloon alxuraan ak bindin yi ak yooyu sëriñ Souhaïbou jël na ko ci moom bu baax wéyal na ndono loolu sàmm na ko bu baax waaye naka noonu tamit yërmandeem ju bari ji ak ci bëgg a laabiire nit ñi jege ñal na leen xam-xam yu baree baree bari def ko ci walaf téere Qurratul Ayni ñépp xam nañ ko gis nañ sax tey njariñ la daa lawalaw ba daj sax weesu gox bi walla mu yem ci yoonu murit rek waaye daanaka ñépp sax dañ ciy far di jariñu rawante naa ci bisi yi ñu nekk bisi koor yi loolu ak laa laabiram ak ak sellalam ak bëgg nu mu xettalee nit ñi ci la ko yàlla may loolu yaakaar nañ ne loolu ak ndono ndono loolu mu doon sëriñ bi ci liggéey bu mag boobu ci loola nag ci lañuy ñuy barkeeloo ñu nit dikk fii di jéem a indi jegeñal lenn ci waxi sëñ bi lenn ci dénkaane sëñ bi foofu nag day laajoon ñu xam dénkaani sëñ bi mooy lan wala luñ ci jublu wala luñ jàpp ne moom la dénkaani sëñ bu mag bi buñ ko waxee mooy li nga xamee ne sëñ bee ko doon dénkaane loola nag mën naa nekk ay wax yu ñett li ay tomb wala lu ko nuru am ko jëlee ci ñu ko jëlee ci sëñ ba ñeneen jële ko ci ñoom ba mu agsi ci ñoom loolu aw xeet la ci dénkaane sëñ bi waaye bokk na ci xeet bi ci ëpp solo tamit lim bindal boppam rawante nag yi nga xamee ne sax moom boo ko xoolee da xam ne ci ginnaaw géej gi la ko bindati yépp am solo waaye yooyu tamit am na day wa boppam bu sore bu wéree su dee xaaj bu njëkk bi dénkaane sëriñ bi walla tomb bi sëñ bi tomb yooyu war nañoo xam ne daa fees dell ak i leer daa fees dell ak i njariñ tomb bi sëñ bu mag bi kiimaan la ni ko sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana waxe تبيتير تود إروى النادي من عذب حب الخديم نينا توم بيوي سنج مك بدن جي بول اليار دا جا بول حقيقه دا جي ديف لك لك ديف تي لو بري ديف تي سول تي لو بري بري بري جي خيتي خم خمي حقيقه لك لك نونو لاي ديف تي خم خمي شريعه لول دا جي فيريل ني توم بيوي كون نيب تي دان جاريني foo mën a toll rek kii door a tàmbale ak ki dem ba àggal am jàng dox lool ci yoonu yàlla yàgg ca lool sori ca téewéri tomb yi su ko masaan déglu ay ay fuyudaat ilaahiya la rabbaaniya yoo xam ne day koy mën a dolli ak leer da koy mën a dolli ay xam-xam yu am njariñ yoo xamee ne sax mën naa yor ay téere te du ko ci gis ni nga xamee ne tamit léeg-léeg dana jege loo xam ne ci xam-xami sariya lay doon xam-xam yu leere yu fis yi nga xam man nañ ko xol ci téré gis ko ko loolu baax naa ak xàmmee ndax léeg dafa am ñoo xam dañu bëgg a melal tomb yi rek ne dafa jëm ci ñi jàngul woon wala ñi mën doona jang wala ñi weesoon jang dédé ci ñepp la jëmoon da sa motax tax dégg tomb yi jafe woon lool ba du yalla ñepp la ko mayoon mas naa dégg ci señ bi bu mu baax mi suñ sëriñ bu baax amit yalla it yàlla ko yàlla fayal té dolli ko yërmandeem tolli ko ngërëmam te jariñu ci barkeem radiallahu taala anhu bi mu ne ma samaam boobu sëñ ma sàmbale si jublu radiallahu anhu mu ne ma yàlla mayoon na ko ci dégg tomb yooyu eh, noonu tamit xam nañ ne nit sëñ ma sàmbale ko ci yàlla mayoon na ci leeral tomb yi nga xam ne lañ daan demaat di géew ci wetam ngir mu koy leeral li indi loolu ak ràññeeku googu mooy loola daa nekkut dégg ko daa yombiwut noonu da dut loo xam ne ni ku ko dégg rek mën koo daal di xam ca saasa ndax fam toll ak kawe la muy wax noonu ko sëñ Massamba bi ame woon ame woon tawfiq ci lool a noonu am na ñeneen ñu ci ràññikoon xam nañ leen lu mel ne sëñ Diem Mbakke bi sëñ Bàññi Jaay sëñ Massamba kandi ñooñu defe naa wax nañ ràññikoon nañ ci lool waaye lii moom sëñ bi wax na ma ko sëñ Massamba muy tegtale rek kon togg yooyu ne duñu ko ñenn ñi déggee ne jàngaleem sharia rek la déedéet leer da caa bari lool loolu sax moo tax am na naar bu ko mas a fekk muy tomb bi mu ko déggee rek mu yéem ko lool mu daal ne xanaa lii mi ñu bokk ci waxi ibnu ataillah sëñ bi daal ne ko bal min atai rabbik daf ni hada min kalaam ibni ataillah fa qaala lahu cheikh alxadim bal min atai rabbik wa ma kana ataa'u rabbika mahdura buñ xamé loolu nak ci tomb yi ni ne aw xéet la ci dénkaane señ bi xeetu net luy wér yoy nga xamné ni nit ñu baax ñi net nañ ko waye ñu xamné bokku na ci li am solo lool ci dénkaane señ bi ñu war di ko jangalante di ko nafaraat bu baax di ci delu bu baax lim bind ndax señ bi mag bi dafa am foo xamné dafa bind ne digal naa leen yéen ñi aju ci man ñépp ngeen di jàng xam-xam ngeen jàng seen diine ngeen jàng lu ngeen di ràññee seeni farata waaye dajaaleg daan ne warlul naa leen góor ak jigéen yéen ñépp téere yoo xam ne di ngeen ko ci mën a fekk ko téere yooyu suñ dee wax dénkaane sëñ bi waruñu ko caa ginnaawal mukk da caa war a jiitu dañ ko war di ko waxtaane di ko nafar di xam la ci nekk di ko jëfe wallahi téere yooyu bu xam ne ci nekk jëfe ko doy na ko sëkk doy na ko sëkk bismillah kon moo tax war nañ di ko nafar bu baax ci jooju yéene kon ak barkeelu ci méthode boobu yi nga xam ne sëñ soin bu liñ ko waxee sànq radiallahu anhu wa nafaana bi moom ci dañ ci moom lañ koy jànge di ko roy di ca barkeelu jegeeñal xam-xam yi ci eh, wolof yu leer loolu moo tax ñu jël tey lenn téere sëñ bi téere bii ngeen seen ñi ngi ko moole Maroc suñu bopp yi fa nekk muy daayira Fathul Ghaffar bu nekk Maroc ñoo ko moole dañ cee dajale ñetti téere sëñ bu mag bi muy Munawwirus Suduri ladal manazil wa inda duuri magaalibu niiraani wa mafatihul jinaan jaalibatul buruudi wa daafiatul ghurur ñett yooyu dajale nañ ko fii bokk fa nekk sonne ko def ci liggéey bu am solo ñu ngi sàkk ci yéen ngir ñaanal leen bu baax yàlla nangul leen liggéey bi te dëgëral leen ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ am na ci ñoo xam ñu ngi jàpp seen xam-xam ñoo xam ñu ngi jàpp seen ñaq am ñoo xam ñu ngi jàpp ci anam gañ ma ne waaye ràññu ko la ñoom ñëpp waaye bokk na ci ñu ci gën a ràññu ko suñu bokk mu baax mu tudd Soxna bu Thiaw ak ko tudd Mouhamad Bamba Dramé dama leen di tudd rek waaye bari nañ ngeen ñaanal leen te may leen ñaanal leen yàlla ñu àggale seen liggéey bi ñu fay def ba ñëwaat eh, téere bi fi mu ne ñetti dénkaane yi sëñ bu mag ne mi ngi ci damay tànn nag bu mujj bi jaalibatul buruur di ngeen xam ne tax ma tànn ko bi daa wax lu baree baree bare ci téere jël benn téere bi ci xeeti dénkaane ak melal way bi ak téere bi moo tax ma bëgg ñu nafar ko su fekkee ne noppi nañ ci waxtu yaatu bi jàll ci Munawwirus Sudur ana ñaari téere yi lu ñuy firi wala ñett yi xam nañ ne bi ma ne moom ci lay tàmbalee da koo tudde loo xam ne day bijj ay nje mbaax luy mën a bijj baax ak baax loolu la téere bi tudd te tamit nee na daa nekk téere boo xamee ne lépp luy nuru waru xeeti waru yépp da koy jañ waaye loolu tur wi lenn la ci tur wi waaye li na ci jariñ yi moom bu ñu demee ba dégg la ci sëñ bi wax dinañ dinañu yéem lool kawe na lool kawe na lool beneen téere bi mooy mën a wér sudu moom it mi ngi ko tuddee loo xam ne yi fépp bi ci mu sawara yi la ak di tëjukaayu aljanna yi waaye incha allah gën jaañu daal bu njëkk bi fas nañ ko matal mën naa amit bu ñaareel bi ñu jaar ci jaar bu gaaw incha allah téere bi bokk na ci li li ko sëñ bi tàmbalee muy li ma doon wax sànq nga xamee ne sëriñ Sonia bi jëlee na ko ci moom muy bëgg a jariñ nit ñépp bëgg ñu jariñu bëgg leen a xett te yàlla rek tax loolu lay tàmbalee téere bi di wax ne loolu moo tax mu def te nee na boo xoolee bu koy def ci mujj gi la ndax mooy yi nga xamee ne da nga ciy gis toujours sëñ bi di wax al abdul xadim wala abduhul xadim wala xeeti melo yooyu ci loolu la ko sëriñ bi tàmbalee muy tàmbalee wax ne da koy def rek mu doon ak laabiire googu sell koo xam ne yàlla rek moo tax mu def ko waaye yàlla moomu tudd ak màgg gi màgg fi moom ak fa mu toll nga xam ne raw na sunum xel ñun mënuñ koo xiyaas mënuñ koo xam waaye rek war nañ cee royee toujours rek eh, maanaa jéem a yokk nunu sunu xam sunu sunu sunu xamlu sunu niitu ci sëñ bi waye bi tuddé son borom mela yi kay melal man wax deug mënuma koo fiiri kawe na euh tudd yàlla bokk na nag ci bir bi mu koy bi muy wax melo yooyu mu koy melal ci di ko kañ ak di sant ak di wax xéewal yi ko defal ne yàlla moom amul moroom iskay yàlla sun borom tabaraka taala wax daan ne yàlla sun borom moom yi nga xam musal na ma ci saytaane ci fépp musal na ma fépp ci seytaane bokk na ci téere bi lim ràññu ko dinaa ko leeral mooy sëñ bi ci da ko saraal boppam saraa boobu dinaa ci jaarale bayit bu ma waxu ne te sëñ bi sarxu ko dina andiwaale lam ci wax lépp insha allah nee na yàlla musal na ma ci seytaane ci fépp daal ci teg ñetti bayit yu kiimaane ñetti bayit yoo xam ne mooy yii ila siwaaya durru wallainu wa kaana lii bilkarami lmuinu ila siwaaya alkaddu kal aadaayi wa kaana lilbaaqi bi gayri ddaayi ñetti bayit yooyu yu kiimaane la dina la tegtal tamit sekare yi ci mbindi lenn ci sekare yi ci mbindi sëriñ bi gis nga ñetti yooyu nuru naag yeneen ñetti bayit yoo xam ne ñëw na ci irwaaw na di mu yi ila siwa yaturuka shaytaani ma lahuma alayya min sultaani الله ربي والنبي المجتبى صلى عليه من هداه واجتبى خلي وحبي وأبا مضرتي ورا من رب الورى مسرتي ñaar yooyu ñett yooyu nuróo nañ lool ñett yee ne ca irwa u nadim ak ñett yi mu andi fii te ñett yee la ñëw ca irwa u nadim sëñ Mat Lamin dafa wax ne sëñ bi am na fu mu nekkoon ci gànnaar dafa am xew-xew bu kiimaane ba fa xewoon koo xam ne daal di daal tuddoo ne moom ci biir taalibe yi la bokk am naar bi mu dikkee sëñ bi daal di koy digal ne ko nay jàng ñetti bayit yi saa yu ne na koy na koy baamu fu mu toll rek na koy baamu nga xam ne kooka da daan def fuñ noppee ci julleeg fuñ kii rek day day day jàng yaasin nee na yaasin bi dina baam léeg-léeg yaasin yaasin ay yoon daal di continuer bu noppee teg ca béyit yi loolu daal moo doon ndigal lañ ko digal saa yu ne moom lay saxoo waaye ndegete kooka la nee na ko yëgati woon ba mu nekkee foofa nee na ay fan wala ay weer noonu la ko waxee dafa xëy benn dafa jékki-jékki jékki génn guddi mu daal di jug xaaju guddi boo xam ne guddi na lool juguute fa sëñ ba nekk daal di mel ne rek ba muy door a ñëw àddina maanaam solu dara di jug tamit ànd ak yéene ju ñaaw ak pexe mu doy waar wuti fa sëñ bi doon teg jaaseem dem jël ko daal wuti sëñ ba a yàlla def na ci bu ñu firee bay di dina dina kii kii maane la allahu akbar bu bu bu bim bim jublu see foofu fekk nee na am na ko romb ci jàkka ji ku fa doon julli mi ngi tudd sëñ Omar Fall Ndate mu ngi doon julli ci jàkk ji nee na di def tahajjud bi mu ko séenee daal di jug daal di topp waaja da daal di gaaw dal di nee na boobu ka nga xëy ne moo moo sosoon ci sëñ bi ci mbiri moo doon euh, moom lañ féetale woon yu mel noonu ci sëñ bi moom la ko sëñ bi féetale woon mu ngi doon sëñ Mat Lamin Ñang doomi sëñ Mat Lamin Mati kooku mu daal di ko ñu daal dem yégal ko ko bañ ko ko yégalee ñu daal di gaaw laata waaje fexe fexe moomee di mën a sotti ñu euh, taxaw digganteem ak li mu bëggoon euh, ba ba loola amee sëñ bi nag ci yërmandeem ju bari ak mat gu mat ni mat ni mate rek nga xam ne li mu doon melawu ma ci mën a wax mooy ne daal huwal waarisul akmal li sayidina habibina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci jikkoom yaag euh, sell gaag mën a yërëm bindee fi kooka ca saasa noonu nga xamee ni gis nañ ko ak yéene jim naroon ñu daal di koy bëgg a waaye di tàmbalee bëgg a jëflante ak moom sëñ bi ni leen bu ko kenn sonal nañ ko bàyyi daal di fekk maneen mbooloo moo xam ne ak seeguñu woon te moo leen waxoon nekk barab sàngam xaar sëñ bi digle ne nañ ko yóbbu foofa woo ñooña yeewi leen daal di leen di wax ne na ngeen ko yóbbu te bu ko kenn lor te da ngeen ko dimbale ba mu jël ay bagaasam yépp ba mu mat ngeen yóbbu ko ba postu sàngam postu bi gën a jege fii ngeen bàyyi ko fa sëñ mat la mi nee na loolu sëñ bi wax ne na ngeen ko yóbbu ba ca postu moo tax lenn ci murid yi dañoo firee ne kooku tubaab bee ko yabal waaye li kimaane mooy nee na ginnaaw loola ñëwaat na ci sëñ bi njaareem ñëwaat na sax ci baneen barab bu sëñ bi nekkoon fekk na ko fa foofa ginnaaw benn nee na moom nee sax bu ko sëñ bi daan gis da ko daan kii naan koy borom jaasi ja loolu la ko daan tooñe ci baax gaag mën a ga mm-hmm. sëñ Mat Lamin nee na am na benn gis na ko ci Thiès muy daagu moom waaja mu ànd ak i nit waaye nee na mu wóor ko ne boo fa nekkee moo doon bëgg a def nangam dinañ ko faagagal ma ne waaw loolu ma koy mën a defee nu nu koy mën a defee man te sëñ bi mag bi jëflante woon ak moom nee xisa bi nettali naa ko ngir yaari yëf bay di nuroo yu ñu ñëwee dinaa ci ñëw waaye xoolal sëñ Mat Lamin ni muy royee sëñ bi ci jikko ju rafet jooju noonu waaye ñoo nit bu ñu dee dégg yi kon war nañ caa jàngee roy sëñ bu mag bi ci jikko yi mën a jéggale jikko yi yërëm bindeef benn beneen bi mooy kimtaanik bayit yi ñetti bayit yii nu rogee yii sëñ bi dèjà waxoon ne lépp luy lor yi mu doon jàngaloo naar bi naan na ko baam lépp luy lor ak seytaane du ma sa jëm ci si moom mukk mukk amuñ benn benn benn wàccuwaay amuñ benn benn doole ci kawam moom sëñ bi ci wetam mu daane yàlla sama bor yàlla rek mooy sama borom ne yónnente bi ñu tànn bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama xarit mooy sama soppe te it moom bañ na kenn di ma mën a lor loolu doon wax naar bi de nekk na koy jàng te mu ne tam yonente bi sàkkul na ko ci sun borom mi nga xam ne mooy borom bindee fi waxi loolu kon ñi bëgg a lor ak ñëpp dugg nañ ci yonente bi sàkkul na ci borom bindee fi yépp yàlla di ko defal mbinde mbégteem rek bay di la la la la sëñ bi waxoon naar bi ne ko dee ko baamu faaw ñett yooyu nag dafa nuroog ñetti bay di kon loolu dañ ci dégg ne toujours firi wax yi sëñ bi wala mbindum sëñ bi laaj na ak gëstu bu baax ginnaaw boo xam ne kii ko wax jublu naa jariñee xoolaat xoolam nemmi ko yéeneem waaye nag laaj na tamit di gëstu lu ne fa ko sëñ bu waxee ak jamono ba mu ko waxee ndax léeg-léeg bayit yi mën naa lënkaloo ak la ko taxoon a jóg comme ni mu amee ci alquran sababu nuzul boo demee ci xadis mu am lu ñuy wax sababul wurud xadiis bi ci jamono yi mu ñëwee moom li yonente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam wala lim gisoon te saxal ko mën a xadis daal ak li muy firi lépp ci détaillé teqantale yi ca nekk dafa am lu ñoo sabab lu wóoroot ci alxuraan am na sababu nusul waaye ci waxi sëriñ bi ak ci taalifam yee am nañ ñun aw sas wu rëy rëy dëgg la liggéey yi ñu ngi ci jéego waaye ñu njëkk ña dañ ñoo raw ci dañ daan xam lii ba noppi xam ku sell waaye jëfe ga jëfe ga jëfe bu ko defee nag loola moo leen di ubbil nag gën a dégg ga ak gën a ñun nag waxuma la jëfeegun gi sax wala sama maas gi ay xam gi sax dafa des bu dee kon war nañoo yaari anam jëm ko xam bu baax ak luñ ci xamit jëfé jëfé ko loolu moom euh, dana tax ñu gën a xam xeeti yi nga xam dina nekk ci biir waxi sëñ waaye kon ñetti yi ma wax ne dafa nuro yële loolu la ci sëñ bu wax momit daal lor lépp luy lor ak seytaane nee na yàlla musal na ko seytaane ci fépp waaye lépp luy lor ak seytaane du mas a jëm si ci moom lépp luy coona naka noonu noonu yépp kenn du jëm ci sëñ bi moom radiallahu taala an ginnaaw bu mu waxee loolu ci téere bi da cee teg sant yàlla cant ko sax dàkk daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa nam gën a mate daat ne nag yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam ne mi ngi julli ci moom moom mi nga xamee ne moom yónnente bi sa alayhi wa sallam sëñ bee firi fii ba tey ci ni mu firee na mi ngi julli ci yónnente bi nga xamee ne liggéeyal gi mu koy liggéeyal ak julli nee na julli gi may julli ci moom gi muy julli ci moom eh, di ko ñaanal di ko di ko ñaanal salaatu ak salaam loola tax na ci lu feeñ ak ci lu nëbb nee na julli googu ci la ko yàlla maye mbooleem xeeti xam-xam yu feeñ ak yu nëbb yi julli gi mi junti yoon sallallahu alayhi noonu la firee wa anfau salaati wa taslimi ala alladi xidmatuhu ulumi xidmatuhu ulumi noonu la ko firee nee na mooy julli gi muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla da ko cee maye mboolem xeeti xam-xam yu nëbb yi ak xeeti xam-xam yu feeñ yi lu kiimaane la ci sababu liggéey gi mu koy liggéeyal sababu liggéey gi mu koy liggéeyal bu loolu jàllee mu ne mi ngi mu mu baa mu julli googu di ko baamu baamuwaat na ko waneen yoon waxaat ci ñaanalaat ko yonent bi sallallahu alayhi wa bi lool jàllee mu tudd yonent bi di ko kañ ak di ko tagg ci tagg yu mat ya gën a tagg ya gën a rafet baamako ay yoon ba loolu jàllee nag ci la dikk nag ci téere bii lii nag fii bu ma fi accès dina dina leer li tax ma tànn téere jaalibatul buruur wa daafiatul guruur nga ne sëñ bi mi ngi ko tuddee nee na sammaytuha jaalibatal buruuri wa innaha daafiatul guruuri daf ne maa ngi sàkku ndimbal ci yàlla mu may ma ma mën a def ak qasida goo xam ne lépp loo xamee ne mboolem mbir yi nga xam ne amul njariñ yépp yépp yépp amul njariñ ci ay pas-pas amul njariñ ci ay wax yu baax amul njariñ ci ay jëf yu rafet amul njariñ ci ay jikko yu rafet amul njariñ ci mbooleem lépp ak moom sëriñ bi yàlla da koy da koy da koy defal xasida googu mi ma ne mi ngi sàkk yàlla ci mu defal ko mu mën a may mu woy ak xasida goo xamee ne ci yàlla moom lay jóge yàlla mi ko faral lépp lu amul njariñ lu amul njariñ nag nii la ko firee mooy loo xamee ci ay wax la ci ay pas pass la wala ay wax wala ay jëf wala ay jikko wala ci leppam sax leppam yalla faral nako ci ca lu amul njariñ xasida googu ba na day day day jubal kër yépp di jugal jubal ka yépp barab yépp kër yeeg dëkk yi dëkk yeeg réew yi té tamit neena ñepp lay mëna a jariñ kuy tukkee ku tok ñepp rek ku bëgg jariñu rek xasida googu dina la mëna a dégg mu ne xasiida googu ci woyu rajas lay doon waaye neen day rafet rafet ba nga xamee ne la nga jàpp ne moo gën a rafet loo andi rek xasiida gi gën koo rafet hmm. ci xeeti wurus sa xeeti gànjar hmm. waaye nag nee na xalis xasida googu ba tey njariñam mooy ab xam-xam lay doon boo xam ne day mel ni ab dund ni muy mën a jariñi nit noonu lay mel ci nit ki ngir ngir ngir di ko mën a jariñ hmm. day am xam-xam yu ci nekk yoo xamee ne ku ko xam sëñ bi firi de moo firee lii de nee na xam-xam yi mu ciy def day doon yoo xamee ne day mën a dindi kiiraayu réer te tamit day mën a doon ab dund bu barkeel boo xamee ne lépp luy xeef xeetu xiif ci baax xasida gi da koy mën a eh, da koy da cay mën a andil nit ki ak regg mhm. doy nee na tamit day day fekk mbooleem luy ay noon yépp xasidaam gi ba tey nee na gi ba tey lépp luy ñaawuk mbir mbir mu mbir mu rafetul mbir mu baxu mbir mu jubut qasida gi da koy da koy da koy fek te tamit lepp luy xeetu jikko bu wax qasida gi bolé nako batay neen mu door wax turu wo mu ko di di wax limi wax ci qasida gi lim tambalé moy dawon def na yow mi bëgg ag ci yalla jëlal qasida gi te xamné ay kaweem ak ay njëriñam du massa njëriñam du massa dog mukk du dog mukk dani qasida nak malay wax moom mawlaana al imaam sayxuna al xadim moo ko woy moo ko woy nee na da koo def rek ngir yàlla ngir bëgg nit ñi mën a jariñu yàlla moom nga xam ne da ko woy fii ci turu samat ci biir firéem bi moom sëriñ bi ba tey ni mu ko firee daf ne da ko tuddee turu samat ndax xasida gi nee na ci weeru koor la ko woyoon loolu sax seetloo mu ko woon lu kii maa ne kan ñu ngi koy waxtaane weeru koor waaye neen ci weeru koor la ko defoo it sëñ bi waxal lol bopam ci firi lutax mu def ko lu mu def qasida gi nañ ko deg neena li motax ma def ko mbir yu reey de yu may reey yu reey yu mag lu kawe dama bëgg neena da bëgg qasida gi nek lu yar nit ñi lu leen di tarbiya lu leen di tarqiya kep ko aju ci mom qasida gi day nek lu ko mëna tarbiya man ko tarqiya non la ko waxe ci beedi ci bir mu daane da dafa jublu xasida gi da ko woy ngir mu doon loo xamee ni kuy door a tàmbale ku ne nga xam ne ci waxtu tarbiya la toll mu mën koo tarbiya bu dee ki nga xam xamee ne daa jàpp ne nekk na ci dara te fekk ak nekkul ci dara nga xamee li muy laaj moo ko mooy ko ko tasfiyaal ab xolam nee na xasida gi da koy man <laughs> ah bari na njëriñ dox dëgg yàlla hmm. yàlla nañ ci yàlla jëriñ ko eh, nan lañuy ñuy jote ci njariñ yooyu ak eh, nu ñuy def ba àgg foofu nag ñaan yàlla mu daal di tàmbale di wax ci kii bi mu ne yow bi nga xamee ne ab murid nga ab taalibe nga na nga jël sama dénkaane bi jëlal sama dénkaane bi sama dénkaane bii de dafa fees dell ak lépp loo xam ne bëgg nga ko ah ab taalibe murid asaalik la mu war a bëgg nee na xasiida gi moom daf ko feese dell lam war a bëgg waaw ah, idil muridu laa yuridu أبدا حيث غير رضا الرحمن غير رضا الرحمن حيث قصدا ca masaali murid dëgg dëgg nag moom fu mu mën a jëm ak fu mu mën a jublu lenn rek lay bëgg mooy ngërëmal subhanahu wa taala kon lol motax tax mu ne lépp loo xam war nga di nga ko bëgg yow murid bi mi ngi ci biir xasida gi lum tambalé lum wax mu ne na nga jital xam-xam ci jep jef su fekke ne bëgg nga am li nga bëgg bëgg nga am say mibet sëñ bee ko firil boppam ba tey firi loolu daan ne su fekkee ne bëgg nga bëgg ngaa jëf dara ci jëf yi loo bëgg a jëf lu mu rek na nga jiital xam lu la nga xamee ne moo ciy gërëm loo yàlla ci jëf joojee soo ko jëfee nàngam wattandi ko ca nàngam dana dana indi gërëmul yàlla nee na loolu mu ngi la koy dénk di la ko digal nee na mu wax nag ne ci sarxu ba tey firim firim boppam moom sëriñ bi ne ku jëfut loolu nag nee na ci wa nee na ci jëf loolu képp képp ci ngay mën a amee ak texe ca la nga bëgg ci ngay mën a amee dajenteeg la nga bëgg say yaakaar dëggu sa càkkuteef nga am ko dénk nañu foofu xam-xam ne nañ koy jiital ci lépp loo xam ne ñi ngi koy nar a def kon loolu mooy bi ci jiitu mu daal di teg daan ne bu jant xëy ba son son mukk mukk te nekkoo di xamlu te li nga xam lu tamit nanga ko jëfe nanga ko jëfe jéem caa dabaatal daal di firee loolu daal ni ci firéem ba tey mu daal ni na nga sàkku xam-xam ci bis bu ne noo koy sàkkoo nga jéem a jàng ci ku la raw walla boo gisu koo jànge nga dem ci seeti téere ñu baax ñu téere woroom xam-xam yu mag ya nga jéem koo yër nee na yër googee nga ko yër dana la mën a tax nga mën caa dabaatal lenn ca la la faatoon ci ay yiw noonu la firee ba tey maanaam loolu tamit dañ ciy dégg ni ku mu ci ñun ak fu nit mën a toll waroo mën a xëy suba ba ngoon te jàngoo mhm. képp kuy tuddoo murit war nga bis bu set nga yokk xam-xam bi mu waxee loolu ba noppi daal di tàmbale di kañ xam-xam di ca wax daal ne xam-xam day day day dundal xolub képp koo xam ne mi ngi koy jàng nee na xolub kii jàng xam-xam xam-xam da koy dundal mhm. te te tamit nee na day leeral bakkanam da koy fegal lépp loo xam ne xeeti lëndëm lëndëm la mhm. loolu waxi sëriñ la ba tey loolu ci dénkaane sëñ bi la bokk mu daal ci teg daal ne na xam ne tamit mbindee fii day bi leen yàlla sàkkee seenu rawante ci yaar rek lay tënku ci xam ak ci diine nee nanga xam loolu te boole ko muñ eh, buñ ñëwee ci munawir sudur su fekkee ne waxtu yaatu na mën naa caa junju ne téere boobu yi boo ko seetloo sëñ bu mag bi mi ngi ko tënke moom ñetti bunt waaw ñetti bunt waaye bunt bu njëkk ba ci xaaj xaaji diine yi la cay wax ñaari xaaj yi diine foofu la ko tudde léeg-léeg da daan wax xaaji diine jublu ci ñaar jublu ci ñett waaye fii moom ñaar la ko def ñaari xaaj muy xaaju te mu nawiru sudur xaaju jëfi ndigal yi ak xaaju bàyyi tere yi su yàlla defee ñu àgg ca ki téere bu kii maanee ngoog noonu noonu mu ko tàmbalee wax la xaaji diine yi wax la ne jëfi ndigal la ak bàyyi tere noonu la téere bi defee mel ne rek benn loo doon jokkale ni ngay ni ngay nase ak kurus mu mu ànde nu ko raw noonu la wax ji ràbbaloo xam ne dafa am noo ko mën a soppi noo xam ne day topp noonu ba ca mujj ga bu yàlla eh, xaaji diine ko firi ñaar muy jëfi ak bàyyi tere daal ni bàyyi tere nag moo gën a diis daal tàmbale teg ca tuub teg ca ka ka bàyyi de topp ko noo xam ne dafa kiimaane dafa kiimaane ci ak rafetaay ak ci ak nosu eh, waxuma nag wetu leer ga leer ga leer ga ca nekk ak njariñ ga ca nekk fii tamit gis nañ ne sëñ bi wax ne ñaar yooyu yi ci lañuy ñuy rawante xam-xam ak diine kon diine jooj bu ñu ko bëggee dégg mooy ñu dellu fële xam ne mooy jëfe ndigal ak bàyyi tere yi bàyyi tere yi nag nee na mooy xaaj bi gën a diis nee na ñu sóobu ci yoonu yàlla moom moo gën a jafe ci ñoom waaye nag mooy li gën nag li mat a gën a góor góorgóorlu li nga xam am na ci tombam yooyu mu doon tomb sax nu ngi koy misaale radiallahu anhu ci nga xamee ne lu baax moom boo ko dee def ci ndab te fekk lenn lu yàq nekk fa rek day mën a doon dara bu yàggee loolu mooy jëfi ndigal waaye nag la koy xajamal bu ca nekkee mooy jëfi tere yi mi ngi mel ne ngay def ci ndab li te fekk ndab li ndab la setut walla ngay def ci defukaayu maanaam njanaaw li te fekk luy faakaagal njanaaw man ci biir njanaaw li mi ci biir kaaf bi lu mën a sotti lu mu bari bari doo fekk dara noonu la mel noonu lañu ko misaale ci tomb yi misaal mu leer te eh, kawe nee ñaar yooyu mu la tudd muy xam-xam ak diine ku mën a gën ci yaar yooyu ngay gëme gëne xam-xam ak diine waaye nee lu caagee nekk ci ndamu ci nit ñu baax ñoo xamee ne yàlla def na nga am ak askan ci ñoom ndax lim ci sëñ bi tek batay tey daf ne sun borom kat tabaraka wa taala mo wax ci ayam ba ne fa idha nufikha fi s-suri fala bainahum fa idha nufikha fi s-suri fala في bainahum yawma idhin wa la yatasaalun ci suratul mu'minun bu بولا mom suñ walé يكفتر خيتي askan kessé du moo fay jariñ sëñ bi wax nañ ne lii jariñ dëgg-dëgg ak li nit ñi rawante mooy xam-xam ak diine yàlla yàlla defal ñu kon mu tàmbale daal ne boo dee jàng nag ci téeree bii ba tey boo dee jàng tàmbalee wut xam-xam na ngay dimbali ko sa borom saa yu ne na dimbali ko sa borom loolu it ci firi xam nañ ne xam-xam doon tele mooy li gën waaye noonu la jafe nag noon la jafe ci mettik boo ñu nekkee di ko wut waaye tamit am ay yu doy waar ay gàllankoor yu bari ne ca biir nga nit mën naa tuddoo di wut xam-xam sax far mu doon buntu woru ca moom loolu moo tax dimbali ko yàlla ak dellu ci moom di doon lu am solo doon lu war ci njëlbeen nee na it nga saxoo di sellal foo toll foo toll rek del sellal ak saxoo téere ba di jàng saa yu ne ak boole ko sàmm sàmm hmm. sàmm nga xam ne da ngay weesu sax ci bàyyi yi yàlla tere doo ko jege waaye lu lënt sax da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy ba sax mën naa am yu dagan yéen doo ci xaabaabal lool dañ ci yem nee na loolu daal ku ko def na ko wóor ne mi ngi mel ne ku taxawoon ci bunt di fëgg rek te mu doon bunt bu war a mën a tijji ko bunt bu war a mën a tijji ko moom boo taxawee di fëgg yàgg-yàgg dinañ la tijjil nee na noonu tamit ku def yooyu mu la digal noonu la mel ci xam-xam sun borom tabaraka wa taala dina la defal nga mën koo nga mën a am tawfiqi mën na eh, am lañ ci bëgg mu ne na saxoog di jàng saa yu ne te la nga xam nga jëfe ko loolu nag ci la ñu ñu njëkk ña rawe te mooy li am solo dëgg nag li nga xam muy lu néew muy lu kii nga nga jëfe jëfandikoo loo ko xam-xam lu bari bari te jëfewoo bu ëllëgee li ci sëñ bi wax moom it aw lay lay doon ci ki ko xam lu rek misaal na ko ay misaal yu daw yaram ci magaaliku miraan bi nga xam ne mi ngi fii wax na ba ne moo daanaka loolu ñuy sëf te mën a sëf lool rek ñoo yem moom ak ki yor xam-xam te jëfewu ko ñoo yem ah loolu de doy na waar yàlla sun borom tabaraka wa taala noonu la misaale woon مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا bii sa moom sax mu sun borom sax nee na misaal moom doy waar la بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين mu نغا واتاني كو wattandi دي tamit di topp sa bakkan loolu tamit sëñ bi dénk na ko ci neen saa yu ne na ngay wuuteeg sa bakkan ci nooy wuuteeg moom di fexe ba doo rekk fexe say nelaw du bari lool bakkan bi fi mi ngi doon boo xamee day day wuté top day wuté ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam day du top yonente bi na nga fexe ba yow diko moy di wuté ak mom saa yoon sëñ bi firee loolu ci ni mu ko firee ne nee na lim ci jublu ci wax jooju mooy dalaa digal ngay wuteeg sa bakkan li fiyeeg bakkan bi mi ngi mooy yónent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy mooy ci nam mooy bakkan na muy mooy yónent bi ci nañu ko sëñ bi firee nee ni mu mooy yónent bi mooy bëgg a rekk neen nag na nga wuteeg moom bëgg a rekk ak bëgg a nelaw nelaw yu bari te te te wu te du nangoo topp yàlla du nangoo topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fii mi ngi na ngay wuuteeg sa bakkan boobu mu ne tamit nanga nga wuuteeg na nga fexe ba tàqalikoo lépp loo xam ne day dox sa digganteeg yàlla su subhanahu wa taala lépp lu lay gàllankoor ci yàlla rek na ko na ko wuuteeg moom na nga ko daw na nga tàqalikoog loolee loolee nag ak junj la yoonu tasawuf loo xamee ne ñoom dañ koy tuddee ay aqabaat ay aqabaat yoo xam ne day ne ci yoon wi boo nafaree téere bu mel ne manaaxiju minhaaju aabidin da nga gis foofa ak teqantal gu bëri ca yooya sëñ bi bi loolu jàllee mu daal di dikk ci dinkaane bi ba tey di dinkaane fii boo ko seetloo dafa mel ne manis na ko jox ne day bëgg a wax cosaani egg ci yàlla bu fekkee am ne cosaan cosaane day bëgg a wax fii loolu la sax dañ ko bindu ti kaw def ko ab tiitar waaye sañ bi wax na ko ci bayt bi daf ne juróomi juróomi jikko day àgg day waral ak egg ci yàlla xamsu xisaalin tuujibul wusula liman baral furuwa wal usula juróomi jikko yooyu mooy la nee na ba ci jiitu mooy julli ci mbooloo ndax nee na julli ci mbooloo day tax am topp yàlla nga gën a baax mm-hmm. noonu la ko waxee ci bayt bi daal di ko firee ci fir firi mu bindal boppam moom sëñ bi firee loolu daal ne mooy ba jiitu mooy julli ci mbooloo ndax nee na julli ci mbooloo ku koy def loolu da koy aar da koy musal ci mbooleem gàkk yi am yépp waaw noonu la ko firee yépp ak ayib yépp loolu nee ci teggin la bokk nee na ku ko bàyyi yàlla dina ko may xam-xam leer yu sekkaree te bari mu firi ko mu ne bokk na ci teggin nga bàyyi bàkkaar yi ak ayib yépp ndax nee na sax ci bàkkaar day waral nit ki umu day nit waral nit ki xañu te tamit da cay teg gàccaal lu ko indil moom ak gàcca dal ci kawam ndax nee na bàkkaar yi dafa mel ne daa am ak jéng jéng boo xamee ne kum xas jéng nee na doo mën a dox jëm ci yàlla waxi sëñ bi la nee na tamit kum xas jéng doo mën a gaawoon toote di mën a jëm ci loo xam ni luy nuru pop yàlla la ak liggéeyal ko ndax bàkkaar nee na daa diis diisu diis xeetu diis diis dafa diis diis koo xamee ne nit mënu koo yor di mën a am ak woyef ci def lu baax ak di sawar di def ci lu def lu baax nee na nuur ci bàkkaar ba tey day nuural ak day ñuulal ak xol day nuural ak xol mujj xol bi bu fekkee daa nuur ci bàkkaar day mujj xol ba nekk ci ak lëndëm ak wow goo xamee ne kooka dootu mën a dootu ci mën a jug mukk ak sell du ko mën a am mukk luy nuru neexit jaam yàlla du ko mas a mën a yëg mukk li fi tuubu waxee sëñ bi la lu may rek nee na yàlla sunu borom tabaraka wa taala moo koy mujj yëram xëcc ko bu bu dul loolu nee na bu yàggee tolloon nee na fa mu jëm sax nii la ko waxee day na wa in lam yarxamillahu saaxibahu fa sa yajurruhu ila alkufri walshaqawati maada allahi taala nee na ca bitti bi lislaam sax la ko jëmee aku texee yàlla ci yàlla musal nee na bokk na ci ay teggin yu ma tamit nit ki bàyyi mbooleem jikko jikko yi nga xam ne ay bi bakkan la yépp mu misaali ko rëy nga xam ne moom moo cosaanu jikko yu bon yépp ni ko waxee ci nga xam ne moom day yàq bu doon yeneen ni dañ naan day waral ak yàq waaye lii moom ci saasi day day daaj ji la fi amoon bu fekkoon ne diine ab tabax la moom bu rëy xasee am daa mel ni tabax boobu nit ki mi ngi koy gor di ko daaj nee na nit ki war naa góorgóorlu bu bàyyi boole rëy bi bakkan yi lu mel ni rëy lu bàyyi ne bañ ab jullit ci sariya waralu ko ak yoon ak yoon nee na tamit bokk na ci teg ba tey nit ki bañ a gers gestu fenn wala ci kenn kudul Allah subhanahu wa taala mo xam lu muy wut la mo xam lu muy dak lu muy xecc wala lu muy dak neena mbinde fi yàlla yépp njariñ ko sen loxo lor ko sen loxo Yalla rek moy aji jariñe moy aji lor kon nak neena na nga jublu yalla loolu moo mu tekki ku jublu yalla ci xol bu sel bo xam amul ben ayib yalla da koy tagatal mbolem fi te yàlla tamit tàggatal googu mu tàggatal mi def da ko cay jariñ te it la ca topp mooy yàlla da koy xamal xam-xami sekkare yu leer yu bari ca xolam loolu ba tey film sëñ bi yokkuma ci dara bi ci topp ci xeeti teggii ni ñeenti bay rek moo ci xas téere bi jeex euh, bi ci topp mooy nee na ngay jéggal képp koo xamee ne tooñ na la jéggal ko ngir lan ngir yàlla rek rek tax mu firee loolu daal bokk na ci ay teggin ngay jéggal képp koo xam ne dara doxoon na seen diggante ci ay nax-nax ci bis bu bis sàngam maanaam fu lu mu yàgg-yàgg wala lu mu jege-jege nga jéem koo jéggal te bañ koo noonu ngir yàlla subhanahu wa taala ba ca na bokk na ci teggin ba tey bareel jàng alquran ak di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa foofu la téere bi jeex subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin amoon naa yéene lool nag te waajoon ko lool sax ma mu nawiru sudoor ñu tënk ko noonu ndax dafa am num nu mu bindoo ak num num nu mu rëddoo noo xam ne dafa dafa dafa yéeme ak càlla la goo xam ne daa nosoo nosoo nosoo moom it ni mu tudd rek mu nawiru sudoor mu nawiru sudoor moom la yàlla na yàlla may kon ci li ñu doon jéem ni ñu koy waxoon ci njëlbeen gi rek ak roy la ak jéem a roy li nga xamee ne mooy cosaan fii ci barab bi ëtt bi jegeeñal xam-xam yu am njariñ yi ci wax ko ci wolof loolu xam nañ ne liggéey bi sëñ bi def sëñ Suhaybu radiyallahu taala anhu wa nafaana bi umpul kenn daj na sax ba ni ma ko waxee sànq ba ci koor gi sax léegi ñëpp dañuy jëfandikoo fafot war nañ fee roy yërmande ju bare ji daa mel ne koor gi li tax ñun ñuy gën a jëfandikoo naafila yi xëymam loo gum leen ci xëymam loo ci ngëneel moo tax nit ñet bu ñu bëggee ñu jariñ leen di xëymam loo loolu am na solo lool ak di leen xirtal ci lu baax ci anam yi gu ànd ak ñëwent ñu ko sëñ bi digale sànq maa ngi jéglu kon lépp lu ci manqué daal xam naa man ma desee dégg li sëriñ bi bind waaye li bind fii moom ak ni mu ko tuddee noonu rek la jaalibatul buruur wa daafiatul xuruur yal na may ñu ko ñu am ci ñu am ko mom téré bi jariñu ci ci lim ñu ci digal tarqiya gi tarbiya gi lepp ñing koy ñaan ci barke sey moom sayxuna mawlana al imam al abdul xadim radiallahu anhu ak ci barke wéru tedd bi ñu nekk bis bu tedd bi ñu nekk di jéggulu ñepp di leen sant bu baax di leen gërëm kon di tënk fofu wax ji di sàkk ci ñépp ñaan wasalaam